yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. waaye tamit actualité jamono également mbirum Sonko ak Adji Sarr également loolee tamit bëggoon nañ ci xam li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi kon Oustaz Assane ñu bàyyi la ak imam. waaw imam xam naa ci quatrième point bi. Euh, question bi mu lay bëgg affaire Sonko bi. Euh, maa ngi koy njëkk a remercier parce que benn kiyom laa njëkk a gis benn sorteem fàttali ma histoire juree ji ci mbiru Sonko te dafa mel ni dama fekk soon son position man dama waxoon ne démocratie animé wu ma woon nii laa liberté courant mu Alxuraan moo doon animé parce que Alxuraan moo waxoon ne bu ñu tuumalee sama mbokk jullit naa ne defu ko Alxuraan loolu moo xam ci laa nekkoon yaakaar naa ne ñu ngi sant borom xam naa ci kanam question bu mu lay posé euh, léegi viol l'islam lan la préparé ki ko def ci àtte parce que dañu ne kaaw viol la supposons mu nekk benn viol boo xam ne réel la l'islam lan la lan la def ki nga xam ne moom lañ ko def su nekkee ne wér na ne moo ko def jërëjëf yaakaar naa laaj bi leer na mm-hmm. euh, jërëjëfati jërëjëf yàlla ndax euh, viol moo yëngal réew mi diiru weer ak nangam viol ci lañ yëkkatee gendarmerie ci lañ yëkkatee police viol ci lañ yëkkatee justice ñëpp àndandoor di agir viol ci lañ demee sax ba armée génn viol ci lañ demee ba fukki bakkan ak ñeent daanu islam nag moom bu ko doon réglé Euh, la mu wax mooy law lawlaa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi anfusihim xayran loolu benn la ñaareel ba it walladiina yarmuuna al-muhsanaati summa lam ya'tuu bi arba'ati shuhadaa fajliduuhum samaaniina jildah te it walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan tekki na walaa'ikum al-faasiquun am beneen boo xam ne daf sax lawlaa iz sami'tumuuhu qultum maa yakuunu lanaa an natakallama bi haadaa subhaanaka haadaa buhtaanun aziim gis nga laa yooyu major ñun ñëpp ñoo ko bokk jàng bu buñ ko jëfandikoo woon problème mu Sonko Adji Sarr dañ koy régler ci benn jant léegi dinaa ñëw ci loolu mais kaaw viol bi waaw atteem ci diine waaw d'abord atteem ci diine waaw ci la ci laa jëm si loolu mm-hmm. loolu mooy mooy sujet bi mm-hmm. bu keroogee danañ ko régler ci benn jant ci nan aji Sarr xale bu jigéen la bokk ci doomi réew mi su nee dañ maa violé islam du ne ko waxoo dëgg keneen ku dul aji saar it bu ko waxoon islam du ne ko waxoo dëgg da koy laaj ki la violé kan la bu tuddee ne Ousmane Sonko moo ma violé dañ koy laaj fan la la violé bu ne mu ngi ma violé ca salon ba salon ba soxna Xadi Njaay ñu ne ko ba mu la liggéeyoolee ca salon soxna Khady njaay dañuy dem toppatoo salon soxna Khady njaay ndax war nañ fa mën a violer nit viol moom force lay àndal forcer nit ki contraindre ko ci lu ko neexul wu mu yuuxu buñ laajee soxna Khady Ndiaye mu ne ah ñun de mosu ñëw dégg yuuxu ñu ne ko ndax mos naa ñëw ci yow tawat la la diw sànga mu ngi may violer mu ne mosta am ñu laaj borom kër gi mu ne mosta am ñu laaj Sonko mu ne defuma ko dégg nga ko de kon Sonko weddi la ña nekkoon ca place ba it nee nañ ci mosta ñëw tawat ne ñu ngi may violé Sonko nag mooy principal bi su ne weddi naa amut l'islam danaan ko soxna Xadi kon amuloo beneen témoin bu dul waa salon bi mu ne awma beneen témoin mm-hmm. ñu ne ko kon nag sa Ousmane kaay taxawal ci kanam yoon nga waat ci yàlla te nga waat ne lii ma soxna si taqal du dëgg ndax Ousmane dañ daan jullit la lenn jaralu ko muy ci yàlla subhanahu wa taala te loolu dëgg ndax day yàq addunaam yàq alaxiram su waatee ci yàlla ne lii soxna si wax du dëgg ñu ne ko nag kon soxna si yow lañ bi yow lañ nee nga te amuloo ku la seedeel te waa ji waat na ah wàcc na lii la même bu ca jëlee woon biir biir boobu duñ ko askanee sukk loolu muy ndax wàcc na moom waat na mu des nag leneen mhm. mooy su boobaa nag yoon wa ca réew ma danaan ah kii kat waat na ne defu ko yéen waa réew bi nag ku ci bind cib journalam ne moo ko def wala mu wax ci toog ci benn <clears throat> plateau comme nii ne moo ko def yow danañ la indi ba ci kanam yoon ñu duma la juróom ñett fukki yar ndax dangaa taqal as gor ci loo xam ne amaloo ko ñeenti seede ñeenti seede yi tey foofu lay ñëw nag yow yaa wax ne ah moo ko def ñee la ndax yaa ko fekkee woon nga ne waaw yàkkan nga ne diw sàngam yàkkanati mu ne diw sàngam bu yemoon ci ñett yi mbaa bokku leen fu ngeen bawoo ñu ne déedéet man fii laa bawoo kii direction bale kii direction bale ñu ne ko ñeenteel bi nag dañuy woo ñaar ñii ñëpp de bu ñu waxee li ko njëkk ki wax ñu ne ñeenteel bu ñu amul ñeenteel bu bàyyi ko beneen direction bu bokkul ak ñoom ñett ñi fi bàyyi ko ñoom ñett ñëpp dañ leen duma moo tax lislaam rek moo mën a protéger aw ket xam naa dina niiroo tamit ku ku tuumaal jabaram mm-hmm. njaaloo jërëjëf est-ce que cas boobu ku mhm. tuumaan jabaram njaaloo même cas bi la mhm. faw mu àndi ñeenti seede mhm. yu mën a gis action bi sinon ñu duma waa ji wala ñu waat loo ndaw si comme yi bokk voilà maa ngi ñëw ci euh, deuxième question bi dafa am loo am solo ci première waxtaan wa doon wax waxu kaso xam nga kon bu ñu comparé loi yi fii faw ñu tëj ki violé islam kon gisuñu kaso ci l'islam mais mais oustaz dama la koy ñaan dafa am lu imam wax lii lu am solo loo xam ne jar nañu taxaw ci parce que mi ngi wax par exemple bu doon droit islamique la ñuy Sénégal naka la mbir yi demee te yàlla dogal na ni li mu fi tudd nii yëpp daanaka wax na parce que waat bi muy wax Sonko taxaw na publiquement waat ñëpp dégg ko wàllum témoignage bi soxna ñi ñi jotoon déglu témoin ñoom ñëpp nee nañu dégguñu yuuxu dégguñu dara parce que condition yi lu islam tënkee waat. foofu laa ko bëgg a laajee quoi imam maanaam cadre juridique waat ndax lañu war a waat man dama naan billaahi wallaahi wala damay jàpp jël nan la l'islam encadré waat ndax da ko validé waaw walla déet waaw voilà dañ koy laaj léegi Sonko déglu naa ko bi mu génnee mu ne waat na ci yàlla ne li ñu ko tuumaal amul loolu waat la déedéet du waat parce que waat yoona ko koy defloo pour mu valable pour mu valable <laughs> moom nag am na droit waat pour boppam wàccee boppam waaye ci cadre bu mel nii moom yoo na ko naan kaay mu ñëw mu waat ne ko soxna si lii la wax ci yow mu ne déedéet amut ñu ne ko waatal mu ne wallahi allazi laa ilaha illa huwa maa ngi lay waatal ci yàlla mi nga xam ne moom doomu la ñuy jaamu waruñoo jaamu keneen ku dul moom ne innaha la min alkaasibin boobaa day téye kaamil bi si loxom wala. déedéet bi ñu bi ñu wax lii rek lay wax. dafa lu ñuy wax ak fu ñu koy def da koy wax ci kanam yoon. ne ndaw si li mu wax amut. gannaaw bu ñu waxee formule de serment quoi. formule de su ko su ko defee rek ñu ne ko Ousmane demal demal. li sëriñ bi wax léegi nag. Ah. tey su fekkoonte ne ji góor. moo tuumaal soxnaam. ca bu njëkkoon ci cadre bi lañ ko àtte woon. Ah. dañ naan ne andi ñeenti seede. waaye dafa am benn saxaabi yu boo xam ne daf ne ah man de su ma fekkoon sama soxna ak góor te aw ma ñeneen ñu ma seedeel ne def na ko te man gis ma gis ko sama bët naa jël bakkanam ci la yàlla nag wàccee laaya boo xam ne uniquement pour lii nga wax la foofa la waxee ne ñi nga xam ne dañoo jëm tuuma seeni soxna walla yar mu wallazina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arbau shahadatin billah innahu la min alsaadiqin balaa yee jeex ñu nekko ko dañ naan la ah yow Hilaal day nee sa soxna gis nga ko mu njaaloo mu ne maa ko teg bët yoon ne ndax am nga ñeenti seede mu ne déedéet man dong la sama soxla na rek sama soxna la ñu ne ko comme sa soxna la lii moom cas particulier la ñëwal fii ci kanam yoon nga waat ñeenti waat mooy formule bi ñu wax léegi rek da ngay waat benn yoon ne wallahi lazi la ilaha illa huwa innaha la min alkaasibin waat naa ci yàlla ne waxut dëgg waxaat ko beneen yoon ne waxut dëgg waxaat ko beneen yoon ne waxut dëgg waxaat ko beneen yoon ne waxut dëgg na ñu ne kon nag léegi mu des ndaw si su ci jëlee ëmb te jëkkër ji weddina ëmb bi wa anha al an tashhada arbaa shahadatin billah innahu la min al wal xaamisatu anna gadaba allahi in kaana min as-saadiqin moom ndaw si it day taxaw waat ñeenti waat comme ni góor gi def na waxut dëgg moom ëmb bi ëmbam la gisut ma may njaaloo hmm. su boobaa itam yoon wa waroon a jël bakkanam ci njaaloo dañ naan ko comme soxna si kat waat na kenn amatul droit punir ko c'est ça lii la mm-hmm. kon day wàcc waat yi maam man nañ ko formuler ci làkk bi nga dégg bu baax mu yor sens bële mooy c'est pas forcément faw nga wax billaahi lazi loolu nga teg ko ci sa làkk maanaam dañ ko tekki ci bu dee pulaar la bu dee wolof la bu dee lu mën a doon comme ça ñi jàpp ne faw nga wax arab mu doog a baax mm-hmm. déedéet c'est pas ko nañ ko wax ci séeréer mën nañ ko wax ci langue wolof d'accord waaye foofu ma ñëw mm-hmm. ne gis nga am na doom juddu na ca te ñaar ñi nga xam ne ñooy jëkkër ji ak jabar ci kenn ku nekk waat na ñoom ñëppay wàccandoor ndaw si kenn ëmb ba kenn du ko ci takkali pot mhm. question awa ba <laughs> waa imam ñu ngi lay mhm. jaajëfal bu baax a baax waaw man dama amoon ci benn question boo xam ne maa ngi la ko bëggoon posé parce que Sénégal dañoo am tendance mhm. kuy waat ak di jël kaamil kaamil boobu lan la ci lislaam wax waaw xam nga kaamil waxi suñ borom la Eh, aw melokaan la yëpp ci melokaanu borom bi ndax man mii sama wax day nekk day yor melokaanu àll yu ndaw am mbindeef lee nag waxe suñ borom la kon day yor melokaanu allah subhanahu wa taala kii aji loolu moo tax nga gis ñu bari di waat ci kaabel bi waaye waatukaay bi moom mooy billaahi wallaahi tallaahi yii daal mooy waatukaay waatee ci sëriñ nag waatee ci sëriñ moom dañ ko tere sax far. l'islam da koy tere. waaw ko tere sax bokkaale la. fo forme yi daal ko jàngalee loolu nag danañ koy faral di def lu bëri. mën nga waat ci borom kaaba gi mu di yàlla. mën nga waat ci ki nga xam ne sama bakkeen mu ngi ci loxoom. Mhm. comme ni ñu ko jàngale woon exactement. yàlla rek la ba tey mën ngaa waat ci ki nga xam ne sama bakkeen mu ngi ci loxoom. Mhm. waat bu baax la yàlla la. waat naa ci borom kaaba gi. yàlla mhm. la léeg-léeg sa olof ne barke yàlla. mais bu nammee ne day waat ci yàlla mën nga ko ko nangul parce que day wax yàlla. mais lu kenn kenn waru waat ci keneen ku dul yàlla moom formule yi rek. voilà formule la. ok kenn du ci keneen ku dul suñu droit bi ñu appliqué fii waat. loi bi accepté waaw serment xam naa ne kaamil bi imaam dama ragal dañ ko roy ci nasaraan si mhm. parce nag seen biibal yi daan yëkkati moo ñu yóbbee loolu voilà yaakaar naa foofu lañ ko dañoo roy lu bëri ci nasaraan si mhm. kaamil bi moom waati billaahi wallaahi tallaahi mais question bi may nga ma posé ki accusé nag imam waaw ki nga xam ne dafa accusé mhm. nit ki taxal ko force de position voilà kooku lu ci diine wax maanaam tey jii nii affaire Sonko Adji Sarr bu ñu demee ba ca càppaandal ga gis ne Adji Sarr yëpp li wax yëpp dara du ci dëgg lan mooy léegi nag bu ñu demee ba ca càppaandoo ga ñu gis ne Adji Sarr bii kat ndeke li mu waxoon yëpp dara ci dëgg sax nag ci ay preuve yu leer hmm. yi wane ne li mu waxoon yëpp dara du ci dëgg mais loolu mooy jafee am ci ci ci lislaam même bu doon ci lislaam mm-hmm. am ko mooy problème. waaw lislaam moom la. ndax moom nee na kii agressé na waat na aji saar waat ci kanam yoon ne li ma wax mooy li am wa yadra'u anha al azab an tashhada arbaa shahadatin billah innahu la min al kaazibin mm. su waatee rek wàcc na moom itam moom aji saar gis nga droit islamique. daal ni yàlla subhanahu wa taala di nekk yàlla nga xam ne ñun ñi ñëpp moonu bind te ñun mënuñoo bind dara gis nga droit bi mu ñu indil noonu la nekkee kilifa ak droit yi yëpp moo tax bu ñu sonal suñ bopp ñun jullit lañu buñ bëggee régler mbir yi facilement pacifiquement deret du tuuru dara du am nañ delluwaat ci yàlla mhm. subhanahu wa taala yow en tant que imam le cadre juridique yow fekk sénégalais nga comme ñëpp xam nga mbir mi nii mu demee début bi ba fin juste une question ah. yow bu ñu la wowoon ne la léegi affaire bi génn nañ ko ci loxo justice tubaab mhm. yow imam Alioune Badara Ndao attel mbir mi ci droit wu l'islam mhm. maanaam yow noo koy attee tey pourtant loolu mooy laïcité laïcité tubaab bi ko fi njëkkoon a samp ñun ñii bi ñuy doon ay xale booba dañ daan wax ne kër baay kër baay xaadi nangam mhm. booba ñi nga xam dañ leen a sampoon comme ay xudaat ay ay juge dañu dañu leen a xàmmee woon ci biir société bi nga xam ne dañ naan ah Adji Sarr Sonko léegi nañ ko jébbal xaadi yi justice indigène bi voilà mmh. l'islam du def xamul test ADN reconnaître ko déedéet parce que test ADN bi dafa am lu ne lu ne da ciy mën a judd mmh. tappale yu ne da ciy mën a judd moo tax l'islam moom du ci domaine boobu moom fi mu rëdd rek waatal waat kee waat wàcc ngeen d'accord bu boobaa tam juge bi nga xam ne moom lañ fi samp ñun ñëpp ñu d'accord ne kii mooy sunu qaadi yi ci tribunal layit bi pour pourtant ba tey daat yaa nga fa ñoom buñ bëggoon noppalu ñoom état bi ci problème bi dañ koy jël rek jébal ko qaadi bi ndax question islamique la mu àtte ko ci ñoom ñaan ñëpp jullit lañ àtte ko ci lislaam mbir ma jeex ndaw si ji doon tudd fii léegi nu mu dëddati ki réer wala kii waa ki ñu ki réer lisatin waaw lisatin lu tax li coono bi ñu daj ci Adji Sarr ko ci lisatin mm. lisatin moo gën a moo gën a flagrant mm-hmm. moo gën a grave ko mm-hmm. waaw imaam ñoom ñaar ñëpp bu ñu waatee nag ñoom ñaar ñëpp bu ñu taxawee ku nekk waat xanaa dañ leen di bàyyi yàlla waaw loolu la wax leen di yàlla yàlla moo leen di factionné fu àll léegi nag yow mal xiyaam lay leer ah. kon l'islam pare na ci pare na ca Ah, d'accord waaw. lii maam wax. su ma koy dëggal mooy bu nekkoon ñaari couple la. waa ji tuumal jabaram. bu ñu waatee ci penc xam ah, am na ku fen. islam day tas sëy bi. xam nga da koy ah, tas. day tas sëy bi comme da koy tas. incompatibilité d'humeur lay doon. voilà da koy tas parce que amatul confiance. voilà c'est important loolu de no de de divorce. kon dañ ko niróole foofu ah, ay incompatibilité d'humeur lay doon. voilà ay injures graves rendant l'existence du mariage impossible des sévices absence. ay yu adulte les dérives adultères yooyu exactement yooyu yëpp moom la c' est dans les causes de divorce uh-huh. voilà comme li nga xam ne moo tax islam c' est uh-huh. ci la gars yi puiser defar seen droit moom la oustaz doon wax mm-hmm. la foi uh-huh. moo tax tribunal da ngay prêter serment da ngay ñëw pour témoigner waaw moo tax nga fen fa wenn fen ñu euh, fausse déposition à l'audience d'une cour mm-hmm. c'est une cause d' en vertu d'ordre ki ñuy àtte yoon may na ko mu fen. mais moom laa yoon may na ko ci fen ki ñu tuumal laa wax. ki ñu tuumal buñ koy àtte kooku bu am na droit bu fen yoon may na ko loolu. mais bu dee islam daf ne waaw le prévenu a le droit de. muy prêter serment di témoigner. ñiy témoigner fois bi la ñuy seet. bu dee islam aussi day jël ki nga xam ne moom ñoom am nga ne daf maa sàcc. kii ne sàcc ma. wala da nga ne da ngaa jël kii na jël wala mu ne man yow ma jox la un million nda yee wedd na joxuma la un million ñu dem tribunal léegi xam nga tribunal bi doute lay def in dubio pro reo le doute profite au délinquant le tribunal da lay bàyyi nga waat waa ji waat ñu bala nga dem parce que le doute là mais nag euh, majeur gis nga ah. islam ku mu pare ci yow fen da nga da nga koy gis maanaam non non non yonent bi dañ ko laaj ndax julli dina ragal ah. mu ne mën naa ragal ndax julli day nay mu ne waaw mën na nay. mooy li Ibrahima wax léegi day fen ñu ne non bu fenee génn na si diine. Mhm. moo tax fen ci bàkk danga nit dina fen ci kaw suuf ba yàlla woo malaaka ci kaw déclaré ne wax malaaka yëpp xam leen ne kële fenkat la. <laughs> kon kon ah, <laughs> eh, yàlla dafa am yërmande. <laughs> Uh-huh. gis nga sutura su bëggal jaam ñi. Uh-huh. moo tax yow boo demoon ba teg ci sa bët. Uh-huh. gis ne ñii ñu ngi def naka su noonu. islaam yar na la yar boo xam ne boo génnee da nga naan tekk ndax doo ñemee booy wax rek ñu duma la juróom ñett fukki yar léegi nag bu ñu demee bay taxawal leen ñoom ñaar faaw kee da ciy wax dëgg ka ca des du wax dëgg mais kii itam bëgg a préserver dignité am mhm. ak ngëmam ndeysaan mhm. yóbbee ko mu fenn mhm. waaw mooy li Ibrahima wax léegi waaw kooku bu génnee digganteem ak boromam xam na ne bàkkaar bu rëy am na fa yàlla ci baaxam nee na xay bu demoon tuub wéetaat ak boromam ne ko yàlla xam nga xam nga moos ne man sa jaam bii di ma wax dara du ci def waaye nag bëgguma sama der yàqu ci société bi man ak yow dong la nag maa ngi lay ñaan nga jéggal ma yàlla mbaaxam àgg na ci jéggal ko waaw d'accord <laughs> euh, am na il faut que ñu rapidement ñu évoluer dem ci beneen en tant musulman mhm. damay wax ne démocratie animé moon nii la liberté parce que xuraan moom wax ne suñu tuumalee majeur naa ne defu ko ma wax ah, ah. moom ne su ma la tuumalee Pape Ndiaye dama naan defoo ko ma rafet njort ok xuraan ko wax d' accord am na suñu benn naataango journaliste Alxayri Aydara nekk fii ci kër gi dafa ma yóbbante question maanaam puisque ñun Sénégal dañu nekk dëkk boo xam ne du droit islamique lañ fiy appliqué mhm. ndax kon bu nit taxawee devant le peuple waat comme ni ko Ousmane Sonko defee ndax loolu waat boobu noonu parce que dañuy wax ne Ousmane Sonko jullit la benn ñaareel bi Ousmane Sonko am na lu ñu xam tuuti ci parcours am luy wane ne kii jullit bu respecté diinaam la hmm. kooku comme xam na ne tribunal islamique amu fii leer ak la man taxaw ci kanam public bi yëpp hmm. weddi waat am na ci droit d'accord alors dañuy évoluer un peu dem ci beneen thème euh, bi nga xamante moom mooy avortement médicalisé mais xam naa duñ ci yàgg ah, parce que temps bi dix minutes moo ci des awa ah. donc ñu bàyyi la nga cëq ak moom laaj ak tonto ci wàll googu noonu waaw d'accord Pape merci beaucoup imam ñu ngi suñu cinquième thème bi ñuy waxtaanee wàllum avortement médicalisé fu mu toll ci Sénégal ak nan la position religieux bi ñoom nan lañ ci taxaw parce que suñu xoolee protocole de Maputori dañ Sénégal daf ko ratifié ñu recommander la légalisation de l' avortement médicalisé en cas de viol ou d' inceste mais Sénégal fii religieux yi ba tey dañ ci opposé wu lan moo waral loolu ba nga xam ne loi bi kilifa diine yi ba nga xam ne loi bi ba tey kii woo appliqué guñ ko waaw ma ci dolli di leeral rek ni protocole de Maputo li mu wax mooy bu fekkente ni jigéen dañ ko violé mm-hmm. wala inceste am inceste mooy sa papa tëddee la ba nga jëlee ci ëmb wala sa nijaay wala sa jeg sa sa frère wala yooyu noonu euh, dañ la war a may nga nga nga nga nga yàq biir bi Sénégal nag ratifié na ko mais harmoniser ko am harmonisation bi moo amagul parce que sëriñ si ñoo ci dëgg seen tànk donc loolu lay laaj bi loolu lay xam nga ñun suñu problème mooy léegoo léeg dañuy jox njiitu réew mm-hmm. Eh, ay sañ-sañ yoo xam ne eh, diinaam joxut ko ko askanam joxut ko ko diinaam joxut ko ko mooy kenn amul droit nekk jullit dem di signer benn traité boo xam ne protocole boo xam ne day may nit ki mu tuur biiram kooku en tant que jullit doonte président de la république nga jullit nga sa diina nangu ko mayut la ko benn ñaareel bi askan bi nga xam ne ñoo la élire amuñ droit may la ko ndax ñoom à quatre-vingt-quinze pour cent ci population bi ay jullit lañu te ñoo ñooy une grande majorité kon ñoom itam amuñu droit may la nga dem di signer pacte traité boo xam ne day may soxna si wutul ëmbam moo xam nag yaay bàyyi ma ko siif comme niñ ko waxee wala nijaayam wala magam wala ab jàmbur a ci yem islaam xàmmeewul yooyu xanaa nag ñaawteef fi dana gën a ñaaw ci bàyyi def ko doomam dana gën a ñaaw ci mag def ko rakkam dana gën a ñaaw ci nijaay def ko jarbaatam waaye mook masamba mee mu jotelul dara bokkuñu askan def ko ko yépp a yem charia daf ko interdire formellement ëmb bi bu xasee créé wu rek ci biir biiru yaay ji na jaar yoon na ñàkka jaar yoon tuur ko dafa xaram mais mais foofu am na am na waaw ba des nag a ah, ëmb bi médecin jullit ñëw xool ko bu dee chrétien la itam médecin chrétien médecin chrétien ñëw xool ko ne a ah, kii day ëmb bi buñ ko bàyyee mën na jël ba kanam voilà waaw foofu man am naa fa benn laaj bu boobaa nag dañuy xool ñaari bakkan yi mhm. bakkanu ki ëmb ak liñ ëmb Mhm. ñu gis ne bakkanu ki ëmb ah, moo gën a am solo moo gën a farata waaw euh, boobaa dañuy maye ñu tuur ëmb boobu ñu ëmb ko ci témoignage su docteur bi mhm. parce que loi bi ñu appliqué sax Sénégal loolu la wax alors man li may laaj mooy mhm. euh, jàngat gis nañ ci droit islam yi dégg nañ ñenn ñu naan dafa am durée boo xamante ni il faut que ëmb bi toll ci pour que ñu mën a dugal bakkan ci moom léegi bu fekkente ne da nga yàq yàq ëmb bi avant que ñuy dugal ci moom bakkan bi ruux bi est-ce foofu noonu kooku def na lu lu lu yoon tere Euh, foofu itam ala kulli haal wuti am na fi waaye comme nee nañ ëmb am na rek mhm. nit am na nit waaw nit la te bakkan bi ruux beeg yooyu yëpp duggagul doo duggagul nit la mhm. ëmb la ndaxte xas nañ ko tuddee ëmb ëmb ëmb na mhm. bu ko defee nag su boobaa ñeneen ñi wax ne déedéet il faut mu am téeméeri guddi ak ñaar fukk bu xasee am téeméeri guddi ak muy voilà mu ngoog waaw 4 fois 3 12 mooy 120 jours. Mhm. muy 120 jours. voilà 120 jours yooyu su fekkente ne mat nañ deuxième group bi dañ ne foofa lañ koy door a tuddee nag ne nit la. Mhm. c'est ça. fœtus bi. kooku moom kenn du lay formé ba organes yi. waaye waaye inceste imam loolu ñëw na sa papa. waaw mais sa papa inceste bi ci xale boobu jug war a màgg. mais papa ku ñu gën a ci njëlbeen gi rek ñaaw na comme ni mu ko expliqué. ñaaw na loolu ñaaw rek la ñuy wax. Mm-hmm. déjà le fait que ñu xam ne kii ëmb na te papa wala frère wala nijaayam wala moo ko ëmbal. Mm-hmm. ñaawteef bi ñu doon wax. que doom dund ci ou pas am na ba pare. Mm-hmm. donc dindi bi ban sens la ba amatul sens. foofu dama ciy rejoindre imam ah. avortement côté boobu rek lañ ko maye. sauver sauver bu naree rey ndaw parce que gars yi dañuy laye xale boobu papam tëddee dafa naar a xaru ji moo tax am na ñu koy laye. Mhm. loolu tamit il faut ñu xool ko. Mhm. ñu boo ko bàyyi ëmb bi day xaru ji. Mhm. imam après nga waxuñ ci loolu nga tëjee ko. est-ce que bëgg a ñuy supposé ne xale bi. si pap moo koy ëmbal dafay xaru ji. ba tax na nañ ko dindi. loolu ah. question la. ma tëjee ko nag euh, balaa ñuy wax waxu xale bi sax pap xam nga dafa am lu ñu fàtte lislaam rek a baax. bu ñu jàppoon woy jur yi génne ko ci penc mi. tàllal ko ba mu tàllalu loolu waxaguñ ko de. Mm. parce que toujours dañuy wax wax. heureusement que charia appliqué wuñ ko Sénégal. <laughs> loolu mu wax boo demee Ceneba. Ceneba sekk fii bu ñu fi defoon référendum ndax ñu continuer suñu loi bi wala ñu appliqué droit islamique. mais Pape Ndiaye dama ban mooy jàll. non c'est-à-dire papa ji choisir rek. papa ji voilà Ibrahima ban mooy jàll. bu ñu defee référendum. kooku viol aggravé la wala loi bi code ban mooy jàll. loi bi code waaw viol aggravé la. xam nga viol rapport sexuel boo xam ne c'est fait par toute personne ayant autorité sur la victime. c'est aggravé même. xam nga loolu la xam nga on suppose que fii bi mineur lay doon la plupart du temps papa ji. Euh, abusé wala frère wala dara. Mhm. mais loi bi da koy considérer comme personne ayant autorité sur la victime. Mhm. dañ koy tëj. comme ni ko tàllal bi moom tëj bi benn la quoi. bon léegi nag euh, dans le droit moderne moom dañuy tëj. Mm. bu ñu ko tëjee yóbbu ko kaso ça suffit mais dans dans l'un ou l'autre xam nga le mal est déjà fait. waaw imam tey ñoo dem ci référendum kon. même kooku koy dóor parti. <laughs> waaw dóor ko da fii fii fii imam bu fekkee ne droit droit moderne la maanaam kaabu dol ni dafa am ay juridiction. ñuy ñuy pose le débat di waxtaan di interroger droit bi di xool. mais yow si sa tontu daal dafa mel ni daal lislaam daal bu tëjee benn parenthèse rek. ñi nga xam ne ñooy borom xam-xamu diine amatuñu droit waxtaan ci pour xool ndax possibilité yàq ëmb bi war na mën a am parce yàlla daf ñu invité pour ñu xalaat. l'islam ay dogme la ay ay dogme la mais Sidi Lamine dafa waxoon lislaam du soppeeku ba mukk mais fu mu toll mën a méngoo ak jamono bu fekkee ne bu fekkee ne bu fekkee ne jigéen si sama mhm. xam-xam dafa dafa wonoon dafa amoon borom kër borom mhm. këram génne àdduna mhm. euh, ñu xam fii àdduna toll médecine avancer yow bi ngay tënj dañ siy xool ndax wan na nga lor wala xeet yooyu mais xam-xam mën na wane léegi une semaine après na yow dara daru la mhm. est-ce que foofu l'islam tamit bu fekkee dañu poser le débat yow nga yor njaboot war a joxe dépense bu ñu la yeewi nga bañ fi ne di muuru di nekkat daal say mbiru bopp que ñu tënk la ñetti weer ak fi àdduna toll mais ce que est-ce que non question la rek par borom xam-xam borom xam-xam laa invité waaw borom xam-xam laa borom xam laa maanaam maanaam est-ce que l'islam daf ñu tëgg rek yàlla daf ñu tere rek ñu xalaat wala wala diine ji tëjeekuwul ci waxtaan ci ñuy poser ay tomb di ci di ci di ci waxtaan par tey sa sa waajur bu góor moom dëdd la doom judd ci mais loolu l'islam l'islam moom dafa protéger doomu aadama daf ko fonk loolu l'islam daf ko war a càmbar ñu jël ci ay ndogal ne ah liikat bu ñu ko bàyyee doom ji juddu bokk même kër ak yaayam di xool papam loolu ñaaw na de te l'islam du xool lu ñaaw l'islam ne man maay man maay dundal yàlla ne maay dundal cas bi def naa ko ay kaa exception lu tax droit islamique amul ay kaa exception yo am na cas exceptionnel waaye bi itam cas bi lan mooy firndeel ne way jur bi moo tëddee doomam islam moom loolu lay njëkk a toppatoo. mais test ADN. te loolu rek moo ko mën boobu itam tappale yu ne da cee mën a am. <laughs> tappale yu da cee mën a ndax fi mu ne nii ñun ñi néew na eh, ku ci kawaram mosta des barab sàngam ku ci mosta dem ci docteur ñu pikiir ko te test ADN yi yooyu yëpp mën na koo exploité ba taqal la yow ne la yaa ko def moo tax lislaam moom lim rëdd dafa leer xale bi bu ne bàyyam a ko biiral wala magam a ko biiral walla ndijaayam a ko biiral dañ naan ko ba muy tëddeeg yow ku la gis il faut day toppatoo loolu mhm. ndax duñ bàyyi rek xale yi di sacrifier seeni laaj bu mujj rek benn laaj bu mujj rek waaw parce que yow borom xam-xam nga duñ la duñ la duñ la bàyyi mu gërë ci ñu hmm. man fase naa suma jabar altine waaw Pape Ndiaye ne ah daf ko bëgg a takk ajuma te xam-xam xam ne mën nañu xool ndax sama jabar bi ma koy bi ma koy fase ëmb na ay seede yu xam-xam ne kii dara jotu ko ndax Pape Ndiaye mën na ko takk ajuma déedéet il faut mu xaar yedd principe islamique la xam naa li mu bëgg a mooy comme jamono yooyu amul test machine yi mën a détecté gros yooyu comme jamono avancé na ba imam tontu am na solo de li mu war a nii science. jeune président islam may ma rek bu demagum. waaw comme li Ibrahima wax ça fait réfléchir. parce que léeg-léeg jigéen jëkkër ji faatu ndaw si ëmb. waaw ba toll juróom-ñetti weer wala juróom-ñetti weer. jëkkër ji faatu une semaine après ndaw si jur. du du tënj. n'est-ce pas imam du tënj. jërëjëf du tee ñëw loolu jurisprudence la boo xam aussi day réveiller tuuti li Ibrahima wax ça pose problème ah parce que. <laughs> parce que li mu wax loolu. waaw euh, jëkkër day faatu ndaw si def un un mois. Mhm. wala vingt jours am doom. waaw d'habitude du tee ñetti. Mhm. donc mooy mooy loolu la bëgg a islam dafa dafa dafa établir ñaari forme yi. ñaari forme la nag voilà dafa ne bu ndaw si ëmbee. Mhm. tant que tant que jurul du du du mais bis bu amee doom. même bu dee dafa tënj 15 jours am doom jëkkër dee 15 jours. am doom xam jëkkër dafa jafe si jamono xam nga jëkkër dafa jafe moom da ngay déglu waaw li ngay wax. waaw day defal bàq rek waaye may dafa am yoo xam ne ci lislaam dafa tudda sawaabit am na tudda xam na ko am na yu invariable. voilà am na variable. il faut yu invariable nga bàyyi ci xel voilà lu ñu développé développé. du invariable problème moom gaynde yooyu du question sax ñàkk am doom mais par respect. boo façon sa jabar tey kii jël ko dañ naan kii moo tas sa sëy vraiment c'est vite fait c'est vite fait voilà moo am tey waxuma la dara amul de kii fase ko le lendemain kii takk ko nee na Pape Ndiaye moo yàq sa diggante moom société bi mën nañ ci dem mm-hmm. kon jaamu yàlla la d'abord tenj bi jaamu yàlla la mm-hmm. yedd bi jaamu yàlla la d'abord euh, balaa ñuy xaar ndax ëmb nga wala ëmbuloo ah, parce que bu nekkee yedd la faw nga metti lu sa demu jëkkër mm-hmm. ñu bàyyi ndax bàyyi doom sa biir moo tax du ñu bëgg nga dugg ci toilette yu metti ñi tenj dañuy sonn mais toilette métti yooyu dañ bañ nga bëgg taaru àdduna ngay bañ a topp mais mën nga liggéey sol lu yiw wàcc dañ naan doo da ngay tàllal sa tànk doo lekk teg yooyu yëpp ay aada la waaw da ngay continuer nga continuer sol yëre nga sol mais na yiw rek nga bañ a topp àdduna 4 mois 10 jour mais ci année linéaire année linéaire ah. ok pas année solaire mais mais imam li Ibrahima li Ibrahima wax nii man daf ma ñor daf ma soxla. <laughs> parce que jamono yi ñu lislaam di rëdd loolu. amul woon échographie. da boo ko defee léegi ñu xam léegi ndax amu nga waaw wala déet. loolu amoon na. Ah, ah. waaw lu raw échographie amoon na. ndax. Euh, kon lislaam dafa raw science. Ah, maa ma ñëw. yàlla mi nga xam ne moo tëral. àtte bi. booba mu ngi communiquer direct ak yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mbir mi bu fekkee am na mën na yebal jibril ne ko demal nga ne ko ndaw seekat biir ba dara ñëw ci ndax yaalamu sirra wa axfa loolu la alquran ah wa yaalamu maa fi li ci biir matrice yi suñ borom da koo xam moo raw fuuf test ADN yi ngay wax moo raw fuuf microscope bi nga xam ne mooy xool léegi biiru ndaw si ne dara newu ci gis-gisub suñ borom raw na loolu mm-hmm. te jafewut ko moo mën a yor gis-gis bu xereñ boobu bi nga xam ne dara mënul amul kiiraay moo tëral àtte bi nañ ko defee nii moo tax islam euh, principe bu ngëm la principe c'est la foi. waaw principe yi xam nga foofu imam xam nga foofu. question bi dafa leer dama ne l'islam moom du soppeeku. mais fu mu toll rek mën nañ ko méngale ak jamono xam nga gis nañu ni jigéen ñi car macha allah dañu bëri jëkkër xaw a nekk doom ju góor. man fase naa ko altine Pape Ndiaye day dem bitim réew tugal. Pape Ndiaye nekk fi mu ne bu affaire yi leeree ndax ëmboo ma takk yóbbaale la bitim réew. xam nga question donc. hôpital mën na def léegi léegi ne xool ne dara jotu ko imam. est pas l' esprit. Mm-hmm. loolu tax Ibrahima il insiste. ah waaw loolu lettre la mais du esprit. lii imaam wax. da ci am solo. Mm-hmm. ñun dañuy dund socialement. dañu bëgg ñun ñëpp. ñu am njortu yu rafet ci suñ biir. islam day liggéey ci domaine boobu. moo tax tey su fekkente ne dama fase sama soxna. docteur bi xool ne dara newul ci biiram. Pape ne ko nag nañ ma ko may tey tey tey <laughs> njortu yëpp dañuy ñaaw comme ni ko imaam waxee ne ah. Mm-hmm. adultère kii moo yàq sëy bi. mel ni da ko yàkkamti woon sax. jeex na. boraama yu ñaaw yooyu nag ñuy jottante ci seen biir ci ngoro ci biir tënj dinañ ci ngoro déedéet duñ ci ngoro. Ah, mën nañ ci nag am na nag lu am solo lu mu junj. mooy wàllu. waaw boo nobee ndaw si ndax mën nga ñëw junj ko dama la nobax yooyu pour bu simee. gars yi dañu bàyyi pour mu toog dañ koy leeral gars yi question bi dañ ma message. non dafa am ku ma ko envoyé message. Ah, nee na imaam na si tontu waaw. bàyyi fay dàll. imaam gars yi dàll yi lay laaj dàll yi. loolu loolu lii Régis préparé mu benn micro à chaque fois ma. lii lii benn intervention ci public bi euh, dafa am solo. suñ borom daf ne wala junaha alaykum fi ma arradtum bihi min xitbati nisa aw aknantum fi anfusikum alima allahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwaciduhunna sirran illa an taqulu qawlan maarufan daf na su fekkente ne nit ki euh, dafa fase soxnaam muy jàpp yedda wala nit ki soxna jëkkëram faatu na muy tenju ñaar yi bokkuñ yedda ak tenju bokkuñ daf ne ñoom ñaar ñi kum ci mën a doon mën nga def li ñuy tuddee gaaral gaaral mooy euh, nga ñëw naan ko bàyyi naa sama mbaxane xeet déedéet yooyu sax ji aw mën nga ne ko rek pour mu xaral ku baax nga ñun ñoo fi nekkoon ak sa borom kër gis nañ ni nga ko doon toppatooyee gis nañ ni nga mm, sot ni nga ko suturaalee woon doo fi tumuraanke hmm. yow daal yëgal ne fii moom kër gi moom ak mbokk yii fi borom kër gi bàyyee hmm. doo tumuraanke mukk ci seen biir loolu wax bu rafet la. mais est-ce que kaddu gi warul leer fi jamono toll nga ne ko rek man de kaddu wax dafa war a leer daal. loolu la tere loolu mi ci tànku ñaareel la. loolu islam la duggalul dara loolu la ñu tere loolu la ñu tere. ci tànku ñaareel la nekk man. loolu laatu waayu du wut na sirran bu leen ko ko dee. ah bu dul bu na yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu ko. ndaw see ngi tënj boo ko bëggee kañ yow mën nga fa bàyyi dara déye ko si nopp. mais ndaw doo ko déye mën nga fa bàyyi dara nag. bagage yi ngay indi rek. wax parce que boo waxul boo ko Pape Ndiaye ñëw yokk su am nga droit jënd saabu jox ko. waaw boo waxul keneen ñëw nag. am nga droit jënd. ay euh, saabu kilo suukar jox ko. mais imaam wax ji am na solo de ñu bàyyi la xel. waaye nag amuloo droit déy ko ko ne ko laa tuwaa'iduhunna sirran. Ah, Pape Ndiaye bu leen ko ko dee fase bi ñu bàyyi ci xel. imaam nga xam am solo. waaw ku ñu fase première fois. Mhm. kenn amul droit dem ku dul jëkkëram. jërëjëf. deuxième fois kenn amul droit ku dul jëkkëram. Mhm. moom rek am droit fayle. mu ngi ci buumu sëy. kooku ci buumu sëy la nekk bu ñu ko jaawalee ah. Mhm. bokkul ak ki jëkkëram faatu. jërëjëf. voilà parce que imam mu ngi leer ñu bëri waxuñu la ne fase nañu ah, du ma ko misaal sax si soxna Awa fase nañu benn soxna rek war imam newoon na naa ñëw ne ko doo fi tumurank déedéet première fase uh-huh. waa ji mu am droit ci trois mois yëpp kenn waru wax ak ndaw si ku dul moom jërëjëf bu trois mois yi jeexee nag uh-huh. moo mu yem ci góor ñëpp jërëjëf bu ko waa ji jël see trois mois yi mu delluwaat sëy ba deuxième fase uh-huh. kenn du ñëwaat très bien quatrième troisième fase nag mooy mbuum bi dagg na jeex na waaye mënatul dellu si kër a gars yi mën nañoo ñëw ci baara yëgoo aussi foofu lañ bëggoon a jëm si imaam leeral na ko baax fa tabarakallah maanaam ndaw si buñ ko fasee feeg yeddaam jeexul soxnaas waa ji la mhm. dañ naan sax bu mu génn kër gi mhm. fi ko fasee néeg bi mu nekkoon fa lay nekk comme benn passé la wala ñaareelu passé la day nekk ci néeg ba jàppee fa yedda ndax alquran danaan laa tadri la alla allaha yuxdisu baada dalika amran mbir mi suñ borom mën na dem ba wëlbatiwaat seen xel ñoom ñaar ñëpp ñu bëggantewaat ñu àndaat foofu lay nekk di toilette de jeex na du génn di la taajal di la defal d'accord alors <laughs> euh, bi jeex na mais imam dinaa ko wax loo ci ñaari mbir rek euh, bi si jitu mooy troisième mandat bi loo ci xalaat noo ko gisee euh, dañuy wax ne nit ñi ñu ngi ci mbir yi nga xam ne ñoo àndoon nas ko tëral ko hmm. islam foofu loolu la fi wax am réew bu ñu àndee nañ ah ñaari mandat lañuy ñuy def ñetteelu mandat amut su boobaa loolu la ñuy tuddee ay sart yoo xam ne réew maa ko tëral ñépp ko war a respecté kenn ci ñoom amul sañ-sañu eh, bëtt ko feeg nag daganalut lu xaraam walla mu xaraamal lu dagan réew mi yëpp nag bu ñu àndoon signé benn pacte te pacte bi day daganal lu xaraam islam da koy neenal wala muy interdire lu dagan islam da koy neenal moo tax ñun suñu sartu yu bëree bëree bëree bëree bëri yi nga xam ne tey ci la réew mi dox nga xam day daganal lu xaraam wala muy xaraamal lu dagan islaam da koy neenal mm-hmm. du kont lii nag daganalut lu xaraam xaraamalut lu dagan muy lan nañ yem ci deuxième mandat su boobaa ñëpp ko war respecté. ci ci point boobu ah Pape Ndiaye ceddo ceddo ba muy naan sàngara bu waxee mu dañ day xaru. Hmm. ñu déggaloo de démb ceddo buy naan sàngara mu wax mu dañ day xaru. Hmm. kon tey jullit lañu bu ñu wax muy dañ. waaw hmm. ab jullit ñaan ab jullit da ko war a moytu. ok dañ ko moytu. Ah. des observations pas d'observation particulière. laaj imam ndax am na ay ambition politique. politique pour nekk député wala maire. pour nekk maire wala nekk sax président de la république pourquoi pas. ambition politique. waaw damay wax ne aussi euh, Imam ndaw moom. <laughs> Eh, politicien la démb bërki démb ak tey ba ba ñuy sàngoo suuf politicien lañ. waaye ban politique. waaye nag ban politique. Mhm. mooy nii ñuy def nii fi mu ne ñun ci politique l'islam ci lañ nekk kooku moom ñu ngi ci. comme ni fi De Gaulle ñëwee woon di gaaral laïcité ak ñoom feder Faidherbe euh, ñoom sëñ ba ñëw fi ñoom itam ak ñoom euh, Alaaji Malik ñoom ñëpp ñëpp ñëw fi indi charia di ko gaaral askan wi imaam Ndao ci loolu la nekk amma nag ndax am naa ambition pour nekk député à l'Assemblée nationale tey loolu dama koy bàyyee gune yii ku ci jóg ñu jàppale ko <laughs> ku ci am assemblée itam askan bi dañ lay déglu bu baax a baax parce que maa ngi gis intervention yi depuis sànq ñu naan Imam Ndawda war na nekk suñu député à l'Assemblée nationale wax nga dëgg fi mu ne gune yi ñoo ma ko dàq teewoo benn yoon rek nit ñi la wax nga dëgg ah, yëpp loolu la ñuy yi ñoo ma ko dàq te man ma dem assemblée nationale ak Pape dem fa benn la Pape moo ma dàq défendre la fay nekk ndax ñaari yëf fi ne nii moo ma gën a faree ndaw cawarte ta jëm am aw ma ko kattan li mu am itam aw ma ko moo tax suñ demee ba àgg foofa dama naan na gune yële dem mhm. ci biir assemblée fees ko dell mhm. nga xam ne buñ demee danañ ruuse wax lu dul dëgg danañ bàyyi xel ci lu waaye ñuy wote ndax mbaa du lor réew mi ak yu ñu demee su na nag ñun ñooy nekk ci seen gannaaw nag mhm. nekk ci gannaaw paap naan ko ah góorgóorlul kat matalal kóllëre sa diggante ak askan bi ñun ñun moom loolu mooy suñ politique waaw loolu nga bëgg mën na nekk mais xanaa boobaa da ngay taxawal parti politique wala mouvement ñu lancé ko ñun suñ parti taxaw na bu yàgg dama koy faral di wax ci samay samay leçon xale yàgg ngi nii parti bi nga xam ne moom la réew mi tere mooy sama parti <laughs> muy muy laa imam bés bu ñu réussiree waaw séparé ñu boobu ñu def kii nitu diine la kii nitu àdduna mm-hmm. la bu ci ko dindee rek réussir jërëjëf foofu dama xoor major ma ne nitu àdduna nga mm-hmm. kii mooy nitu diine ah. pour quelle raison Pape Ndiaye mii nitu diine la ci laa génération bi dañu leen soxla dañoo dëgg très bien problème mu dañu leen soxla problème mu capacité la voilà man-man ak kàttan voilà fii su ma fi waree toog Pape war fee toog voilà man mag magee sama doolee néew na dama koy wuccee Pape hmm. ma ñëw nag ci laaj bu am solo mooy ndax xalaatu ñu créer parti. Mhm. ñun ñu ngi militer ci benn parti bu ñuy tuddee parti bi yàlla bi. bisimilah donte nag constitution nationale réew mi àndu ci waaye constitution bi dafa ñëw fekk sunuy maam ak sunu bu yonentu sallallahu alayhi wa sallam doon militer ci parti bi. moo tax ñun amuñu droit militer ci beneen parti bu dul parti bi yàlla bi subhanahu wa taala mu naa Allemagne nangul nañu Angela Merkel jërëjëf partem ba jërëj am na parti républicaine démocrate am démocrate démocratique nangul nañ ko chrétien alors temps bi waaw waaw boo mayoon tuuti rek damay damay foofu moom il faut xam naa ne danaa la fi ñaan Pape nga may ma fi ñaari minute mhm. damay dégg léegoo léeg ñu naan nañ def attention ci diina mhm. ak waaso parce que day yàq réew loolu képp ku koy wax war nga ko tuub ndax danga nga ja jaawale ñaar yu bokkut diina mooy defar réew diina mooy ñëw ne ko yow jullit bi kii nga bokkalul pas-pas respectel ko pas-pasam waaye itam kii nga xam ne daf ne man nag ab athéiste la ab athée la ñu ne la respectel ko mum athéisme bàyyee kook sàngaraam mu muy naan ker boo demee ba ne dangay ngay am sañ-sañ ca butéelub sangaram ba dem toj ko xaraamoon na ci yow de nga jënd butéelub sàngara waaye keroog danañ la obligé nga jënd butéelub sàngara fay ko lii mooy diina mbaam xuuxu yéefar boo ko reyee sax boo ko reyee da nga koy fay islamique mm. da nga koy fay. mbaam xuuxu yéefar bàyyi ko ci ku parfait yi fay. c'est moo tax euh, dëgg-dëgg war nu bàyyi waat xel ne. ci loolu yëpp yii nu wax yëpp. te man dama naan dëgg-dëgg doctrine yi ñu fi appliqué depuis xaw ma ñaata at depuis 1960 ñu ngi fi waaye leer colonial mu ngi fi woon. Mm. ñoom wane nañ seen limite yii fi xew yëpp ci seen loxo la xewee. Mm-hmm. milliards yi ñu fi sàcc yëpp ci seen loxo lañ ko sàccee déception bi am ci société bi yëpp ci seen loxo la amee te pourtant bari ci démb bi nga xamante ne réew mi dem na bay bëgg a takk ndongol daara moo jóg lu nuy tuddee sëriñ Muntaxa Mbàkke ak leneen ndongol daara lu nuy tuddee sëriñ euh, mbay mbay si Mansour leneen ndongol daara lu nekk ca Kawlax ñu koy tuddee sëriñ maa yi ak ca new na ñeseen ci gàttal mënuma lim ndongoy daara yooyu ñoo jóg wax ak ba ci suñu mbokki taaleen taaleen yi di sëti Cheikh Umarul Fuuti Taal ak waa église ak jërëjëf mhm. yoof ñoo ñoo jóg wax mbir mi calmé te toll woon na foo xam ne kenn mënu ko woon a calmé ku dul ñoom kon leer na ne l'islam rek moo mën a doxal mbir yi teg ko ci yoon te pourtant ñu kenn mësul leen a tuumaal ay milliards yooyu naan ñoo ko fi sàcc amuñu soldu amuñu pension amuñu soldu amuñu pension war nañu xoolaat suñu bopp bu baax gis nga réew mi buñ bëggee mu dem compte li nga wax yëpp ñu gis ne dëkk bi daal vraiment ñi di politique ñoo am mérite bi yëpp ñooy am oto yi rafet yi ñooy am xëy ñooy am lépp ah. te yow vraiment sa kaddu am na fu mu yegg am nga benn daraja bu kawe ci dëkk bi est-ce que jotul nga jël sa courage à deux nga taxawal parti politique maanaam xeexal sa xeexal askan bi parti politique pur et dur ndax pare woo pour pour def loolu déedéet euh, maanaam man damay militer pour parti bi taxaw waaye du doon sama parti parti bi yàlla la bu boobaa na ko major jiite <laughs> na ko Pape Ndiaye jiite na nga ko jiite na ko sox keneen jiite soxna seeg diw sàngam waaye kaddu yàlla na taxaw man loolu mooy sama sama sama. militantisme jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw major maa ngi ñëw temps bi moo xaw a. Ibrahima may ñu tuuti rek temps bi moo jeex <laughs> donc ñu jël benn intervention ci public bi rek. Euh, sëñ Alaaji Ndaw jërëjëf waaw ñu waaw. waaw waaw dina maa ngi ñëw ci ñoom léegi ah. ñu jël benn intervention ci public bi rek waa mm-hmm. délégation imam Ndaw bi la bokk. waaw mm-hmm. waaw mi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yi bu baax a baax mm-hmm. ni ko sëñ bu mag bi wax dëgg yàlla animé mm-hmm. kontaan nañ ci trop fi ne yaakaar naa ne vingt trois mm-hmm. xam na ne bu àggoon deux heures nit duñ doyal man kay ga sax gars ma naan naa ci yokk trente minutes waaye sañu ko def direction des programmes xanaa bu ma ko mayee en direction des programmes gars yi nañ ma dolli trente minutes ñaan naa leen ko en direct nag ma ko mayee mu wéyal su ma ko mayewul nag lu <laughs> Oustaz Assane Diop ak Mouhamadou Biteye. Mouhamadou Biteye <laughs> ñooñu ñëpp sama ndongo lañu. vraiment wala yàlla xam ne dañoo kontaan trop tey moom. dañ ne woon moom daanaka duñu wax dañuy ñëw rek déglu mais saa leen bi daa wax di kii góor gi di wax bu ko tontoo rek mu ñëwaat. dafa mel ni Salen bi xam naa temps yi boo ay mbokkam. dafa mel ni am na lu muy waaj. waaye dafa mel ni parce que góor gi li mu wax lu leer la. bu leen may indil problème nag. ah mooy na leer na leer nañ ci ak nangam ak nangam loolu mbiru doomu aadama la. waaye yàlla mi nga xam ne moom moo mooñ yuuru doomu aadama. moom la góor gi doon waxal. te même américain yi gëstul. def nañ benn jàngat boo xam ne dañ ne maanaam soxna si nga xam ne ñaar yi da koo dab benn boroom këram fase ko wala boroom këram wàññi ànd bi mu doon ànd ak borom këram loolu day des ci moom ñu ne génnin bi pour mu jeex ci moom day nekk ci ñaar su dee ki nga xam ne dañ koo fase génnin bi pour loolu génn ba jeex faw mu am trois mois su dee ki nga xam ne nii borom këram dafa wàññeeku maanaam soxna si ni mu koy miséere génn bi mooy gën a yéex laa bëgg mu àgg ci quatre mois dix jour yooyu yàlla wax te pourtant bi yàlla di wax loolu boobu science àggagul fii mais yàlla moom moo bind borom science loolu rek laa bëggoon a wax pour xam naa sànni kontaan nañ trop nag vraiment mhm. buñ sañoon moom xam naa ba trois heures rek yàlla na yàlla barkee liggéey bi amiin wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatulah ci loolu science wax sax mhm. science dafa am leneen lu mu ci tegaat mooy ci biir délai boobu diire légal boobu bu ci soxna si sëyee ak keneen mën na ko indil ay fitna waaw ndax ñaari ndox yu jaxasoo lay doon mhm. ci biir yaramam mhm. bee jeexagul ëmb amut de mais trace yaa nga fa maanaam trace yi jëkkër ju njëkk ja bu beneen ñëwee nag fekk ko fa loolu mooy indi ay maladi mhm. euh, sànq ci njëlbéenu waxtaan bi am na loo junjoon ba ma ne la bu ñu yeggee ci thème boobu yaa ngi doon wax naan diggante wàllum viol ak euh, prostitution waaw am na loo différence boo ci doon expliqué de waa dañuy wax ne viol ñun niñ koy tuddee fii ci sunu loi laïque bi ñu ne mooy ki nga xam ne da nga ko forcé seeg moom yow alquran da lay tuddee jaalokat ak ki nga xam ne da ngaa waxtaan ak moom ba ànd ca xam nga kooku ci suñu luwaa layig bi dañ naan amul problème mm-hmm. ñaari mag lañ ñu d'accord mm-hmm. mais moo kee ñoo bokk àtte mm-hmm. jaaloo la rek jaaloo la rek. ñaar yëpp jaaloo la loolu mooy la tudd c'est bon à savoir amoon nañ yéene yeggali waxtaan wi waaye ah. temps bi moo xaw a jeex rek ba daanaka ah, xaw nañu xaabaabal sax xam naa dañuy def tour de table rek ñu tàggatoo major ma commencé ci yow waaw Pape suñu jakartamaan Thiès yi bala ma koy fàttee mhm. parce que xam nga métier boobu xale yi di faral def léegi ñu leen tuddee ay jakartamaan mhm. dafa xaw a doy waar léegi Sénégal ndax xale yu baree koy liggéey mhm. te xale yi koy liggéey aussi ay citoyen sénégalais lañ léegi li li ñuy wax ci société bi actuellement ñu dimbale xale yi pour ñu am lu ñu liggéey ak am lu ñu def donc euh, dafa jot léegi ñu encadre leen aider leen benn ci chambre de commerce yi reconnaître seen métier bi ñu def leen exploitant de de de moto de deux roues de motocyclette benn secondo il faut ñu immatriculer seen moto yi état bi ci projet yi mu am leen ko tertio il faut ñoom seen ñu identifier leen ba pare wutal leen fonds de garantie parce que accident yi ñuy def xam nga mooy tax léegi duñu mën a nekk en règle moo tax policier ak léegi loolu bu ko état bi defee ci projet yi ñu am aider leen ci yooyu la le métier immatriculer seen moto yi euh, identifier leen ñoom ñëpp police moom mën na ko def et puis encadrer leen wutal leen ce qu'on appelle un fonds de garantie pour bi a fay bu yàqalee nit a xam nga loolu tax alkaati leen jàpp-jàppee donc jàpp-jàppee bu dafay metti parce que finalement ñoom pour ñu nekk en règle def seen liggéey donc finalement dañuy demander ñu tolloore leen en attendant que état bi jël ay responsabilités pour ñu organiser yooyu métier au Sénégal maintenant nag pour conclure ci débat bi moo tax nit ki boo ko xamul rek xamoo ko moo tax xam-xam dafay baax et puis nga mën a déglu écoute le sens de l'écoute parce que imam boo déggee approche philosophique yi muy def ci li muy expliquer surtout le terrorisme on est séduit il a tout expliqué loo xam ne sax c'est pour l'état du Sénégal c'est sa contribution la pour état du Sénégal boo xam ne dañ ko ciy xam donc moom li ngeen di wax ni au lieu muy créé ji de conférence c'est-à-dire moom il doit s'approcher même des institutions de yuy décider pour que mu am ab mu am apport intellectuel bu muy def ci stratégie ñuy définir dans ces domaines là mm-hmm. domaine surtout la lutte contre le terrorisme comment éviter le terrorisme comment renseigner les et tout parce que li mu wax nii xam-xam la ay cours académique la yoo xam ne boo jàngee affaire yooyu tuuti da nga xam loolu dëgg la mm-hmm. parce que man nii exemple li mu wax noonu dëgg la parce que ñun am ci benn cas boo xam ne temps Abdoulaye Wade la benn waaye bu ñëwee dafay ñëw dafa bëgg a def attentat dafa bëgg a nangam nangam kort comme li mu wax rek force occulte yi fexe ba duudal ko comme li mu wax nii mais effectivement bi ñu xoolee waa ji li ustaas wax lañ gis waa ji booba talul doom yeeg ñu ngi bitim réew sa waaye am ay moom mi ngi seet fu mu wute dépense mu amee paas ba dem moom ci loolu lay xëy di ci gont ay nit ko duudal boo xam ne maara déem yoo xam ne comme li mu doon demee rek ci kaso lay dee rey njabootam mm-hmm. donc effectivement li muy wax nii yëpp day nekk ay cours yoo xam ne état bi euh, war nañ ci jël euh, acte et puis c'est un mm-hmm. c'est un point focal c'est quelqu'un d'intéressant pour la mm-hmm. gestion maanaam nguur gi daal dafa war a liggéey waaw bien mi non man man curriculum laay def xam naa xam naa luy jàngale ak ak euh, yëpp l'état doit de lui parce que heureusement pour nous am na xam-xam yoo xam ne yor na ko yoo xam ne c'est c'est inné ci moom yoo xam ne ni koy expliquer leer na te mën na jariñ ci ci sécurité ci lu bare bare bare bu donc vraiment on félicite imam mhm. et ni la encouragé il faut nga <laughs> continuer ci tel que soit les tumultes ne tient pas compte voilà continuer rek a œuvrer mhm. et puis à former des jeunes pour dellu seen xel yi yow sa contribution ngay def mooy jaadul naf si boobu ngay wax loolu loolu fexe ba jàmm di am mhm. dara du yàqu kenn du gaañu kenn du loru l'essentiel tout le monde dala la ci waaw loolu daal commencé ko Mm-hmm. stabiliser réew mi stabiliser jeunes yi. Mm-hmm. def sa contribution. Mm-hmm. ce qui est évident comme li nga wax. ñëpp dana la ci fekk si. parce que réew moom képp koo xam ne yaa ngi œuvre jàmm. di ci nit ñi xel moo xam ne day tax ñu sellal seen xel. gën a am xam-xam gën a am éducation gën a jël seen bopp en compte dans l'éthique et la déontologie ñuy fonctionner chaque jour. kooku ce qui est sûr ça sera payant un jour. d'accord merci beaucoup major oustaz Assane Seck. ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw euh, di wax ne. Euh, kii état bi dama koy ñaan tamit mu delloo confiance bi mu jëlee woon ci nit ñi ci moom. Mm-hmm. yaa ngi koy ñaan mu dem fa mais maa ngi ñaan état bi parce que xam nga tuuma. bu la ko tegee boo demee ci këyit lañ lay setale sa avocat mooy génn wax ko te yow la du man am naam àggu fa. Mm-hmm. yuusufa bu ñu ko tuumalee. bi buur bi géntee gis juróom-ñaari nag yeeg yooya. Mm-hmm. bi ñu ko bëgg a jël si pour mu régler problème économie dafa siisu leen du ma génn. na ngeen dem ci pale ba ndaw sa seetal ma ba ma set wecc kon day laaj ki tuumalaate taxaw ci pénc mi ne ki ma tuumaloon juum naa du moom dafa baax ci deru gor tuuma dafa diis tuuma dafa diis maa ngi ñaan loolu tamit parce que tamit ci kayit rek lañu lay seetalee ñi naan est-ce que parce que faw ñu delloo si confiance bi nit ñi amoon ci imam doute bi bañ bañ amati parce que fii bu ñu gisee sa sikkim rek commencé na la contrôler sa sikkim rek ñu commencé la contrôler kon voilà malheureusement te sikkim alalu julit la yonte moo wax ñu yor ko kon su ko defee euh, ñu tëjee loolu di gërëm suma ñaari xarit euh, imam Moussa Fall mu ngi ITV mu ngi seetaan mm-hmm. ak suma mbokk euh, Saliou Diouf mu ngi toglu mu ngi seetaan gërëm leen ñëpp kontaan naa ci jotaay Pape Ndiaye maa lay remercier mm-hmm. soxna Xawa Ibrahim mm-hmm. Mazor yàlla na yàlla boolewaat fii en tout cas bëgg naa ñu dee fi def fi ay études yu ñuy comparer ci domaine yu bëri. walla l'islam boo ne charia ni ñu yaakaar ne paaka la jaase la dóoraate la non l'islam mooy yar nit ñi bu ngeen ñi bu ngeen leen joxe ndaw ñu defar leen malheureusement malheureusement. yàlla yàlla def dégg topp. amiin amiin incha allah jërëjëf jërëjëf oustaz Assane sekk ñi ngi rafetlu sa teewaay bu baax a baax nga nuyul ñu suñu naataango yi nekk fële ca Sen TV également ah. Adama Awa Bari yow ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw merci Pape maa ngi lay remercier bu baax a baax di jaajëfal imam bu baax a baax wax dëgg fa neex yàlla émission bi neex na jëlee nañ ci ay jàngat. bu baax a baax di remercier oustaz Assane bu baax a baax. Mhm. en même temps Pape di la remercier ci confiance bi nga ma yombul mais maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Ibrahima moom i depuis sànq mu ngi mi ngi waxtaan ak man mhm. kontaan naa bu baax a baax di nekk di nuyu équipe balance bi yëpp ak techniciens yi. mais Pape damay ni remercier sama famille di remercier sama yaay di remercier samay mag parce que ñoom lu ma nekk rek ñu ngi ma ci accompagner bu baax a baax. merci jërëjëf yow tam ñu ngi lay jox euh, dig daje ci yeneen jotaay Ibrahima Sall. waa xanaa ñu ñëwaat tuuti rek si li suñu papa major wax euh, jëmale ko si xale yi di dawal moto yi. dafa nekk liggéey bu am solo boo xam ne xale yi vraiment ñi ngi siy gis seen bopp donc kon nguur gi nañu leen encadré lijjanti leen ay këyit tekk ci yoon comme ni ko major waxee mais financement yi nga xam ne njiitu réew mi annoncé na ko loolu également bëgg naa ñu bàyyee si xel ñi caabi féete ginnaaw ak anciens détenus yi anciens détenus yi ñu bëri jafe-jafe pour am liggéey parce que li ñu jaar kaso moo leen topp si seen dund loolu nag Nassim Macky Sall euh, yëkkati lu tollu 7 milliards de francs CFA. mu jébal ko ministère de la justice ñu jox ko réinsertion sociale bi nga xam ne mësul am budget te amul budget pour que vraiment loolu ñu mën si jàppale ñi caabi féete ginnaaw yaakaar nañu ci loolu ba ko njiitu réew bi waxee ba léegi ku ne ñi ngi may woo naan ma su ma génnee fan laay jaar pour kii kon njiitu réew bi na leen si bàyyee xel euh, bu baax a baax taxawaayu imaam dafa am solo li tax mu am solo mooy nitu nitu diine yi dañ defoon ne arxuraan rek la ñuy wax ay yàlla nee na yonante bi nee na mais moom wane na xam ci dimension boo ko nattee wane na ne ñi ñi jàng njàngum nasoraan dañ defe ne ñoom ñoom moom xam-xam ñoom ñoo moom dëgg alors que nitu diine boo jëlee cheikhul xadim fi mu jaar ni mu fondé le mouridisme nga jël maam El Hadji si ngay xam ne l'islam yàgg na am ndam l'islam yàgg na wane ay ndaanaan daara yàgg na génne ay ndaanaan ay borom xam-xam émérite te moom exemple patent la ci dimension boo ko nattee imam am na fa xam-xam te loolu saa buñ ko invité mu wane ko parce que suñu ko invité ñun dañuy jot ay message message yooyu si la ñuy xayma daraja invité bi moom wax oustaz euh, Assane Seck bi nekk Sen TV mhm. ñu nekk nit ñoo xam ne vraiment yàgg nañu fi invité ay nit mais jot nañu message yu bëri yoo xam ne nit ñi ñu ngi rafetlu seen xam-xam mhm. mais également ma jéexale ko rek euh, parc ko ba di jaajëfal militaires yi nga xam ne ñu ngi fa nekk vraiment di def un travail remarquable mhm. di nuyu le chef bu baax que ay militaire lañ su may classe ñoo fa ne muy Moussa maane may nuyu classe 2 3 mooy ñi ma demandool armée di nuyu ñoom Famara Danfa ñoom sa Tamba ñoom Bamba Rebo Bamba Ndiaye di nuyu waa Tëgëj waa HLM Rufis di jaalewaat Ibrahima Ndiaye alias Mbulo di ko jaalaat waa HLM bu baax a baax di ko teg si loxo capitaine mhm. Sarr ak Baye Mor Sall. Mhm. Euh, jërëjëf Ibrahima yow tam ñu ngi lay jox euh, dig daje ci yeneen jotaay di profité di nuyu suñ papa Mot Sall ah. Mhm. Euh, di ko nuyu bu baax a baax di nuyu tam madame Sall ah. numéro un alors ah. <laughs> imam kaddu ñu bàyyi la yow tamit la défense a toujours la parole en ah. <laughs> baax na jërëjëf euh, Pape ñu ngi leen di jërëjëfalaat major jërë ngeen jëf ci liggéey bu rëy bi nga xam ne télé baa ngi koy def Cheikh Hassane kontaan nañ ci de seet tase fekk yéen soxna Adama Xawa Bari bi ñu ngi ci kontaan jërëjëf jërëjëf imam jërëjëf eh, ndaw ngeen yàlla def leen mag jërëjëf amin amin may leen ndam ci liggéey bi amin amin amin suñu mbokk sàlleen bi <laughs> eh, militant la boo xam ne damay damay wax ne Sénégal yëpp ñoo war a nekk ci gannaawam moom itam mm-hmm. ndax euh, li muy xeex ñëpp la koy xeexal Euh, kaso ku fa demul mënu koo xam waaye boo fa jaaree ci ngay door a xamee kaso euh, da nga fa gis yu bëri yoo xam ne da nga naan mënoon na ñàkk demee nii jàpp naa ne loolu moo ko dal mënoon na ñàkk demee nii waroon na mën a demee nii bi ñuy ñëw léegi rek ci oto bi ñu ngi waxtaan ne kaso yi rek mënoon nañu téye réew mi ci liggéey tey budget bi muy proposé ci réinsertion waxuma la sept milliards waaye yàlla xam na ne quatre milliards képp am na ñoo xam ne buñ ko téye woon ñu bàyyi leen ak ndaw ñii ci biir kaso yi lenn ndaw dootul tëdd kaso ba génn ñu ne def na fa ñaari at te duwul ni dana génn ki million te ndaw loolu bu génnee génn million boo xam ne mën na caa liggéey dootul ñaan yàlla dellu kaso am na benn plan bu ñu fi defaroon doon ko tuddee plan développement local. Mhm. sëñ Pape xam naa ne bis dana am ngeen invité ñu uniquement pour loolu. Mhm. incha allah plan développement local boobu bu bu ñu ko doxaloon. Euh, jakarta maan yi léegi tey ñoom ñëpp ñu soppi seen jakarta yi ay ay taxi. Euh, criminalité bi léegi tey mu jeex ci réew mi na càcc gi nag léegi tey mu jeex te criminalité bu jeexee càcc wàññeeku nit ñi dañuy am cawarte. ci investir dañuy am cawarte ci liggéey ndax kenn ku nekk dana xam ne lu ma liggéey kat fi mu ne maako moom ndax dëkk bi am na sécurité bu ko defee kon sëñ Pape ji jërë ngeen jëf bëgguñu guddal foofu. Mhm. ñu ngi jërëjëfalaat euh, Walfadjri euh, commencé ko ca kaw ba ci suuf ku lim juum bëgguñoo tudd kii bàyyi kële. Mhm. Euh, liggéey bii ngeen seqoon nag Sidy Lamine vraiment gàcce ngalaama. Mhm. waaw mu ngi dox gannaawam. nu mel ni nam daan doxee wala sax nu ko raw mhm. bu ko defee loola eh, mu jeewu leen puso bi mu réer ci seen loxo te yéen a ngi conscientiser société bi ndax yu mel nii buy faral di am léegi tey conscience eh, sociale day daal di tasaaroo mhm. te bu amee rek alhamdulilahi rabbil alamin Euh, danañ gis beneen société bu soobee yàlla. a mhm. ngeen jëf. jërëjëf Imaam yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam nañ ne Kaolack sori na waaye mhm. tamit ñun mhm. la ciy gërëm bu baax a baax. Euh, di gërëm a tamit euh, suñu naataango yi suñu mbokk yi. nga xam délégation bi nga xam ne waaw délégation naa la ko may ñoom ñii de yàlla xam na ne jokkoowuma ci kenn ne ko am naa fi émission rajo. Mhm. xam naa dañ ko dañ ko dégg ci ci rajo bi. Mhm. dégg ko ci télévision bi eh, moo leen andi fi mhm. te ñëwuñ fi rek uniquement pour déglu euh, mbir mi moom nañ ko dégloo ci seen kër waaye dañ fi ñëw pour yeneen i yitte ak yeneen i sentiment ak yeneen i yëg-yëg. yoo xam ne man mënu mënuma ko expliquer. muy lu ma xam ci ñoom. Eh, di ndaw ñoo xam ne fa tabarakallah yal na yàlla bëri ñu mel ni ñoom ci réew mi. yan yàlla teg ci seen loxo lu ngeen lu ngeen a tabaxee réew mi te delloo si fi jàmm. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.